kon am nga sa ñaareelu ponk ñetteel bi mooy nga fexe ba xaar nag juróom-ñetteelu fan Arabie Saoudite am na nu ñu organiser woo noo xam ne bus yi nga xam ne jox nañ ko regroupement yi ñi nga xam ne ñoo organiser aj jox ko tamit ñi nga xam ne ñoo ne ci délégation bi ci lañuy ñuy jugee nag ak dëkk yi nga xam ne ay mutayif ñoo nekk ci bërëb yooyu am na nu ñu ko defee ba Sénégal ci juróom-ñaari bërëb ya nga xam ne ay pàcc la ca fa nga xam ne mooy Minna foofu la ñuy dem ci juróom Sénégal lu ci ëpp. am na ñoo xam ne dañuy def euh, dañuy am option rythme idée fii maanaam mooy service plus mooy ñi nga xam ne masala souvent dinañ wax ay xeetu benn package boo xam ne euh, ci ay limu lay toll ci li ngay fay waaye day fekk rek ci euh, ni ñu defee euh, minna boobu nga xam ne fa la ñuy dem ci yow ma tarwiya juróom-ñaareelu pàcc lañ ko def Arabie Saoudite juróom-ñaareelu pàcc yooyu nag ñi nga xam ne ñooy nekk ci pàcc bu njëkk bi ñooñu ñooy faral di fay ci service plus boobu ñuy wax xitma yi day fiya ñoo ciy faral di fay lu cher kon noonu la ujaa yi Sénégal yi nga xam ñoo ngi toll ci limu 12 860 noonu la ci ñu bëree bëri dajaloo foofu am nañu suñu borom di dogal dogal ñu dem ci yeneen bërëb yoo xam ne mu ngi foofu ci Mina euh, noonu lañ fay nekkee ci fan yi nga xam ne li ko jiitu ci aj gi la yow ma tarwiya muy juróom-ñeenteelu fan bi yow ma xarafa juróom-ñeenteelu fan bi ba ci fukki fan bi mooy euh, yow ma naar muy bis bi nga xam ne moo ñuy moom moom ñi nga xam ne tànn nañu tamatu ak tànn xiraan ci la ñuy rey moo tax ñu tudde ko bisu rey bi muy yow ma naar mooy fukkeelu fan bi di tamit bisu it ndax iid la ci ñi nga xam ne nekkuñu fa it la ci ñi nga xam ne suñu borom dogal na muy feet goo xam ne ñoom seen ponk aj gi nga xam ne moom moo jëm ci haddu bi ñu war a def ci bis boobu lañ koy def kon nag dem nga xarafa ginnaaw bi nga xam ne juróom-ñetteelu bi dem nga minna fanaan fa bët set di yow ma arafa bis yóbbu leen arafa kon nag ku yow mi def ifraat yow xamal ne yaa ngi dem arafa taxawaay teewaay la la laaj nga defaat sa ñeent ñetteelu ponk ginnaaw boo jógee sa ñetteelu ponk bi nag jàppal na nag léegi nag boo jugee xarafa jaar musdalifa def euh, def fa sa julli parce que maa ngi lay bëgg fàttali léegi boo nekkee fi nga xam ne moom mooy xarafa ñaari julli moom moo fa am tisbaar ak tàkkusaan tisbaar ak tàkkusaan benn nodd la ñaari liqaam ñoom ñoo ngi koy ñoo ngi ko fay julli dendal dendale ko nag ñoom ñaar maanaam du sorante benn nodd lañ koy def def ko ñaari liqaam tisbaar ak tàkkusaan la ñuy julli xarafa bu ñu jugee Arafa nag Musdalifa lañ jëm ak loo fa guddee jugee jugee bul jàpp ne war nga faa julli beneen julli bu dul tisbaar ak tàkkusaan xaaral ñii la fa indi ndax ay oto ñoo fay jël si ay nit di leen yóbbu Musdalifa di leen fa yóbbu bu ñu leen yóbboo Musdalifa nag foofu la ñuy jullee timis ak gée loo guddee arafa yow mi ñuy topp ci Tawfekh International loo guddee arafa bis yi ñëwaguñ jël la bu fa jullee timis boo ñëwee nag Musdalifa heure boo fa mën a àgg fa ngay jullee sa timis ak sa timis bi ñetti ràkka gée ñaari ràkka comme ni nga xam ne wàññee nga fële tisbaar bi ak tàkkusaan mbokk mi juge nga nag euh, arafa ñëw nga ak waxtu boo fa mën a ñëw jug nga musdalifa musdalifa def nga fa say julli heure boo fa mën a jóge bu ko defee nag yaa ngi jëm nag min na delluwaat sa tànt moo xam ndax da ngay salaat ci lu bari bu ko defee nag yaa ngi jëm fa nga xam ne mooy jamra ay autoroute spirituelle la Arabie Saoudite ay mbir moo fa doon am ak nit ñi niñ ko jëlee ci song ko ngir di ko fa defi Arabie Saoudite am na nu mu organisé woo ba am na ay yoon yu baree bari yoo xam ne léegi nit ñi dootuñu daje. boo fa jugee sax sànni sa jamra ba noppi même bu dee da ngay dellu Mina demuloo Màkka def sa tawaf ifaada doo daje kenn ba keroog ngay delluwaat ci say tànt ñi nga xam ne nag dañoo sànni seen jamratu ba nga xam ne ñi mooy jamrat jamratu aqba boo ko sànnee foofu doo taxaw sax di ñaan. ndax yeneen bis yi boo ñëwee sànni jamratu taqir jamratu wusta yooyu yëpp boo ko sànnee ba noppi dangay ngay ñaan waaye jamratu aqba moom bi ngay sànni ci bisu tabaski bi nga xam ne moo lay dindee gum ci benn wàll ci aj gi ba mu des nga jaxasoog sa soxna bu dee yàlla dafa dogal nga ànd ak sa soxna lépp luñ la tere woon ci aj gi boo sànnee sa àq ba suñu borom dogal na euh, loolu lépp teggi nañ la ko ba mu des nga ànd ak sa soxna nga jaxasoog moom foofu nag moom fa ngay jugee nag dam defi sa tawaafu ifaada mun nga koo defee ak sa yére yi nga yéenee armal mun nga ko defee tamit ak sa yére yi nga xam ne tamit moom danga koo solaat ndax boobu yére armali mun nga koo dindi moo tax dañuy bañ nag nga gis koo xam ne moo ngi def tawaaf ifaada sol beneen yére nga jàpp ne kii amaana dafa def loo xam ne daanaka xatal dafa def erreur wala dafa def leneen waaye bëgg xam gi nga koy xam mooy tax ñu bëgg nga jàpp ne foofu boo fa ñëwee rek ci tawaaf ifaada gi am na ñoo xam ne boobu jamratu aqba bi dindi na leen ci seen armal kon nag euh, loolu mooy sa ñeenteelu ponk yow mi doon def ifrat kon yow sa aj jeex na kon nag loolu mooy li nga xam ne moo aju ci ifrat asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.